Euh, Abdou Khadre Ndiaye di Kader. Euh, euh, xew-xew bi fi am ci suba gi naka la naka la demee mën nga si dellusiwaat. waaw tey de dama ñëwoon juste sama buntu bureau bi rek xam nga man maa ngi ci membre comité de gestion bi di di di di di membre de l'ODCAV aussi ma ubbi sama jël siège bi toog noonu juste rek la ma benn waay yuuxu ne ma sa waa ji la doon seet léegi de am na ko muy dàq nii mi ngi jëm ni ma ne ko waa ji kan lay dàq bi ma génnee nag def le tour de tribunes la seen ñoom ñaar ñuy dàqante waa ji di ko dàq. sama copain bi di dàq waa ji mu koy dàq noonu di dem ma daw topp seen ginnaaw mais comme waa ji dam euh, euh, daf moo leen gën moo ñu moo ñu gën a gaaw nag daw jot naa daw ba génne bunt R100 bi ma ñëwee ba fii juste ci angle bii juste ah laa ñëw fekk waa ji tëdd maa ngi ko fekk nag mi ngi su boobu mi ngi sukuraat ndax boobu jam na ko fii ci dënn bi cam na ko ci loxo yi ba veine yëpp dagg nañu deret ji dem ni bi moom xam naa ku yum ko ci dóor dafa bari moo tax boobu daal bi mu agsi daal xam naa daal nooy yi mujj daal la doon nooyi quoi ci la sama waajee itam doon dàq waaji mu rëcc ko mu desuwaat ci man maam Mor mu desuwaat ci man ci laa jël sama téléphone woo police woo sapeur jotuma ko ma woo président ODCAV ne ko dimbale ma bu fekkee yéen conservé wu leen sapeur ngeen daw wax a sapeur mu la ci leen daw wax du soo mu daal di fii daal noonu daal la mbir mi demee mais nag ñoom ci suufu côté suuf tribune yi nii daal ni ñu jugee waa ji daal ñu seen ñett nit rek xam nga fii temps yi dañu ko interdire dañoo tëj stade bi moo tax kenn nekku fi moo tax mu wéet ñett nit dong ñoo nekkoon ci kaw tribune bi ak man ma nekkoon ci côté ba nële waaw moo tax fii wéet gars yi bi ñu njëkkee gi sax ñoom dañu yaakaaroon ñaar ñuy dàqantee foo la boobu kooku jam na ko mu jam jam na ko moom muy daw nag du boo a génn ndax dafa am mbokk yi dëkkee côté R100 buntu bële xam naa da doon daw pour dem seen kër mais waa ji da koo bàyyiwul nag waa ji ñu jam waaw waa ji ñu jam mais nag waa ji da ko da koo bàyyiwul nag. Ah, da koo jam topp ko da koo jam topp ko nag. looloo ko doggalee bàyyiwu ko nag bu accès ba ci angle bi ndeysaan à peut-être à 150 mètres de la porte ci la daanoo bi mu daanoo na foofu foofu la mbir mi jeexee daal noonu la mbir bi demee daal. ñu rey nu mu tudd. Ngumba Ngumba Ndiaye la tudd Ngumba mi ngi dëkk am na ay une partie de sa famille à Darou Salam l'autre partie à Ersan fii pas loin pas loin pas loin ici foofu la dëkkee quoi il paraît que boo gisee c'est un jeune boo xam âgé de 30 ans comme ça. mi ngi woon en en rasta euh, il paraît daana fi ñëw nag quoi bu wàcc liggéey ba wàcc daana ñëw fii rek après aw fi daal di jàll dem mais xam naa tey moom euh, moo doon bësam daal moo tax euh, bi affaire bi xew kenn ne ko fi amul ko koy dimbale peut-être bu awaatoon suñ côté benn sax nit ñi jàppale ko mais côté bii bi ko waaj a dàqee ñu muy jénnee nii fii dafa wéet kenn ne ko fi moo tax te xam nga dañ fi jël ay mesures fii kenn du fi dugg en rapport avec le directeur ak ak la police gars yi dañ fi ñëw def fi patrouille. génnee ñi ñi fi entraîné moo tax le matin taalibe yi fi doon nekk tam taalibe yi ñëwatuñ fi fréquenté wuñ fi tey dafa seen togg journée boo xam peut-être journée des taalibe yi ñoom euh, le maire taali si la yooyu moo tax on on a pas y avait personne pour les secourir c'est ça quoi ñun nag bi ñuy agsi fi yoonam la xam nga fii euh, dafa am bunt buy buy génne ne gis nga mu nga ne boori case des tout petits am na bunt bu nekk fi fee booy dañ koo bët di jaar fii itam dañ ko défoncé di fi jaar malgré tëj nañ porte yi mais dañ ko défoncé di fi jaar donc ñoom ñoom itam bu ñëwee fii la a ak tëb miir yi rek daal di jàll dem seen yoon mais comme nee ngay gis ni nit ñi di jaar comme d'habitude bu ñëwee xam naa fii aw fii ci terrain bi naan fi ndox wala daa kon ne dem seen yoon. waa ji ko waa ko jam euh, ban mandarga la am nu mu mel dafa njool dafa gàtt dafa xees dafa ñuul. ñuul na moo ëpp waa ji mu rey tuuti moo ko ëpp tuuti ndax waa ji man gisuma kanamam ndax sama waa ji ko doon dàq. moom laay gis moom mu ngi ci kanam mais mi ngi yor dara ci daf ma xaw a sore à 200 mètres nga gaa ngi gis paaka bi mu yor quand même ngi daw moom rey na ma mi ngi daw di génn waa ji topp ko. mënu ko jot dafa gën a gaaw mënu ko jot te yoroon na portable sax après les soog a ne man su ma xamoon ni ma koy dàq ma filmé ko mais boobu xel mi nekku ci moom mi ngi yuuxu nit ñi di accourni pour nit ñi di leen yuuxu ah, au secours Mamor ne daf maa seet si ma yéex a ma ne ko xaar ma mu yëg ci kaw tribune mu yëgee tribune ko jam rek dekkat yoo ko xam naa waaj te muutul kon da waaj da koo jam ba pare après daw dem da koo jam da ko jam bi yàgg na parce que boo gisee ni mu deret ji fi mu fii la commencé man gis naa deret à peu près ay 100 mètres nga xam ni kii mi ngi daw mi ngi koy jam bi mu agsee ba ci gannaaw camp yi juste foofu la daanu ba mu daanoon nag foofu lay def ay dernier souffle am ndeysaan nooy na fa nooy yu métti. après waa ji ko jam daw. waa ji ko jaw daal di daw dugg biir air champs daal di rëcc. bon lu mel ni moom mi ngi fiy soog am bien que fii parfois nit ñi dañ ci wax yenn am na ñu fiy toog nag di fi di fi ñëw di fi fréquenté yoon yoo xam ne def naka su dul noonu te xam nga étant civil yow mënoo leen dara boo leen waxee du duñ la faale wala ñu lay duñ la déglu sax waaw ah, waaw c'est ça mais bu fee bu fekkul woon problème problème corona bi du fi mën a am ndax ñu bëri doo fi entraîné ay mbëri ngi fi ay sportif tout le monde est là fi li ñuy entraîné boobaa xeex gaaw da xeex dana am sax mais du yàgg à la minute ñëw àtte leen mais période bi xam nga fii dafa wéet. moment bi mu ko jamee est-ce que police sapeur ñoom yéex nañu ñëw wala ñëw nañu à temps. waaw police sapeur nag teel nañu ñëw parce que jàmm bi moo sori. bi ñu leen wooyee teguñ ci quelques minutes quand ñu agsi le commissaire est venu ñëw na ak i éléments euh, les sapeurs aussi son venus te ñëw nañu quand ñëw nañu à temps mais c'est dommage waa ji man mii sax laa la wax man mii njëkk a ñëw ci moom man mi bi ma agsi fekk naa mi ngi mi mi mi ngi sukuraat fekk naa mi ngi sukuraat vraiment. bu ñu dellusiwaatee ci sécurité sécurité stade bi ñaata gardien ñoo fi nekk ak état d'urgence bi jamono ji naka la barab bi di doxee. barab bi benn gardien moo fi nekk moom nañu wax di dëgg benn gardien moo fi nekk te système civil tey fekkoon tey dañu amoon benn agence bu fi nekk wala ay ASP wala ay police wala ay militaire wala quelque sos boo xam nekkoon na fi nekk fi di fi monter peut-être yu bëri du mën a am barab bi tam bërëb bi dafa rëy xam ngeen champ de course même ba ñee champ de course dafa rëy euh, ñaari nit ñett nit mënu koo garder Euh, jàmm sax moo fi daan am toujours fi daanan fi am jàmm parce que xanaa ay manifestation moo fi daan am rek ay xët-xët yu ndaw après mu jeex su dul lool aussi gars yi dañu fi entraîné ba 19 heures ba 20 heures ñun ñii man fii laay nekk ba 20 heures moins 10 euh, fii laay nekk gardien ba 20 heures moins 10 on allume lampe yi mbedd yi taal lampe yi ngay gis pour fi am lumière pour mu am gën a am sécurité mais xam nga nit ñuy jox jug pour def lu bon moom loolu moom parfois daal mooy lool te fii dafa yaatu dana dem ba fay fële gis nga fële fële cee fas yi fee ci cur yi fee ñu def fas yi foofu fépp ci la bokk loolu lépp dafa ci la bokk. Eh, ñaar ñi doon xeex tey ñu rey ak ki rey ndax eh, jàngatoon na xëy na dañu doon tux wala tuxuñu wala xaw nañoo nuroog nit kuy jël cigarette jëm yi. bon ñaar ñi mu naan li ma gisee seen kii bi nga xam ne ñii xamante nañu dañuy nuroog nit ñaar ñu xamante dañuy nuroog ñaar ñu am lu ñu seq waaw parce que dañoo xaw a maase xaw nañu maase kin rey sax moo xaw a ëpp tuuti xaw nañu maase parce que boo gisee muy daw kin rey sax moo ko xaw a ëpp tuuti mais parce que kin rey boo xoolee il est un peu en rasta kee bopp bi da ngay euh, euh, na ma lool daal mais daal xam naa ni daal euh, am na lu leen jotee quoi mais du daje fii rek reyante du xam naa ne lu leen jote du fii quoi. Hmm. waa dañu fay daje. état d'urgence bi couvre-feu bi naka la barab bi dawee ndax da ngeen a tëj lépp ndax am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi ñëw di entraîner yow. waaw am na jamono yi ko Euh, gars yi ñëwoon nañ dëgër di continuer de football ñu woo police bi police ñëwee jëlee leen fi police ñëwaat fi jëlee leen fi police ñëwaat fekkaatu fi kenn xam naa loo tax nit ñi léegi bàyyi nañ football bi waaye dana am benn benn yu fi nekk gis nga comme ne benn benn yu fi nekk ñoom di daw waaye saa yu police ñëwee ñëpp arrêté daal dem seen yoon waaw loolu moom mi ngi fi am moom. waaw kon daal yéen ci ci stade bi jël ngeen disposition yi yi war yëpp. waaw yëpp euh, ci dem parce que directeur wax ci ak waxtaan ci ak ñun wax ko gardien mairie tam wax na am na lu ñu wax directeur. directeur moom saa yuñ bu ne su suñu gis lu ñuy jaaxal bu ñu ko nee konk mu daal di woo daal di mu daal woo mu daal di woo euh, euh, la police police ñëw jëlee fi gars yi. ñooñu nit ñi nag bu ñu ko gisee noonu nit ñi ñoom jëlee bi ñu leen fi jëlee daf leen ñuy metti dañuy yaakaar ni dañ li ñuy xeex wala yenn jaaykat yi fi jaaykat ñoom fan ne xas nañ lu ne leen xañ seen wërsëg te xamul ne mbir mi dañuy corona bi kon kenn xamul kan moo ko yor comme ñu ngi naan ay cas communautaire moo tax ñun tam ñu jug fagaru li ñu naan fagaru moo gën faju daal leen ne dem leen dem leen bu police ñëwee itam bu nit ñi bañee bu police ñëwee itam jëlee leen fi rek ñu tëj stade bi continuer waat toog fi ñu toog kon daal fi mu ne nii yéen yemal ngeen yëpp jëm ci wàllu disposition ba nga xam ne daal état d'urgence moom ak couvre-feu bi ni muy demee yëpp da ngeen koy respecté. waaw fii moom c'est bien respecté parce que boo xoolee à partir de 19 heures sax ñi fi dëgër bopp des bi sax dañuy génn di profité di daw. ndax euh, yëg nañ ni fi policiers yi moom gars yi gisoon nañu benn benn kii bu ñu doon ñu ay ay waa R100 ñoo fi entraîné waa Cité Senghor waa waa Diamaguène ainsi de suite les quartiers périphériques yi wër course bi ñoo fii ñëw di entraîné. donc mais à par de 19 benn yooyu sax nga doon gis ñëpp dañuy commencé dem di génn. même bu police ñëwul lañuy commencé daw di génn xam ne couvre-feu couvre-feu bi léegi mu ñëw. ki ne rey nii xam soxna loolu wóoru ma nag ndax euh, wóoru ma ba am na soxna man nag daanaa ko gis nii nag daana aw fii ci boori daral gi ñëw aw fii séen ko fii mu ci kaw tribune yi di féexlu man loolu laa ko xamee mais nag xaw ma ba xam am na soxna ak i doom. lan mooy message de sensibilisation ci ci nga xam ne dañuy jëfandikoo barab bi ndaw yi ñu koy ñëw di entraîner yooyu lan nga leen di sensibiliser. ah li leen wax daal mooy nañ mën a toog seen kër barab bi dañ koo tëj barab bi tey ji bu fekkoon barab bu neex a tëj képp la dañ koy tëj kàpp ba kenn du fi jaar waaye gis nga fee gaay ak ñoom ñoo ko foq dañoo defar miir be tabaxaat ko ñu foq ko pour di fi jaar bunt yi boo ko tëjee ñu yéeg ci kaw bunt yi daal di wàcc ñëw donc loolu dafa metti te day lan loo xam ne looleen wax rek am na ñenn ñoo xam ne da nga desante ñoom nag wax leen comme am na mag doon entraîner fee ñoom ñu leen waxee ñoom dañoo bàyyi seen entraînement mooy waa Qatar am na ay responsable yu doon mais bi corona bi amee gars yi wax leen dañu bàyyi équipe de football yi fi doon entraîner dañoo bàyyi équipe athlétisme bi fi nekkoon fi di daw dañoo bàyyi waaye dafa am yoo xam benn benn la ñooñ ñoom kenn mënu leen ñu tee mënu leen te dafa am ñenn ñoo xam nag daay neen dàq nañ leen ca marché bi ñenn ñi am na ñenn commerçant yoo xam à partir de 16 heures léegi nga gis commencé ñëw par benn benn xale yi taalibe itam temps yi taalibe yi bari téye nañ leen moo tax gisoo fi kenn sax heure bi ñu tax taxawal mais sinon bu dul woon loolu korom corona fii day fees daleki taali bu bu bu nu yalwaanee ba pare daanaka fii mooy seen añukaay waaw te dafa jafe daal